yàqu léegi ñu ne léegi nañ def association ñun ñëpp ñu bokk ñu xeex ak yelleef jullit gi eh, ci bëgg-bëggam diviser ko sant bu nekk dañ koy jël ñu diviser ko en quatre bu ñu waxulee eh, sant bi géwél la benn sant bi de ñu ne tëgg ñu ne géer ñu ne jaam yow léegi sant yëpp dañ ko tilimal léegi ci biir société bi mu am ñoo xamante ne dañoo beru jël ñi ci des def leen comme ignorant Nous association yi buti xew-xew yi am ci jamono bi da ngay ñëw eh, ñoom ñenn ñu ñenn parole existe bu man dem naa bëgg parole ñu jël sama tour, def ko pour ma bañ te presque incarné woon affaire boobu ba ñu dem eh, caravane avec eh, monsieur le président

ndax yàlla subhaanahu wa taala daf ñoo ba ba ñuy ñëw eh, suñu papa aadama ak suñu yaay awa ñun ñëpp ñoo jógee ci moom donc képp ku judd da nga judduwaale ak sa mbubb géer géer benn yoon nga koy doon du ñaar ndax juddu benn yoon la munoo juddu géer ci say cosaanu maamaati maam nga ñëw digg ba bëccëg ndar kàmm ñu bugg la taqal def la jaam loolu du lu ñu neex moo tax ñu jóg ñuy xeex comme euh, man amoon naa événement Gambie bu ma fekkee woon demoon naa ci benn campagne électorale léegi eh, kenn ki géer la man foofu laa wàccoon moom laa doon campagnal kenn ki il fallait que uude la léegi bi boo kooku gañee ñee nanguwuñu ñu ne comme uude la warul nekk seen maire mu nekk xeex ñuy dóorante foofu xaañante ba lakk sax ay kër foofu loolu amoon na ci milieu soninke eh, aussi Mali maa ngi gis image yoo xamante ne nit ki danaan du ma jaam ndax sama maam musul nekk jaam du ma ñëw ma nekk gan ci biir dëkk bi rek nga bëgg ma ignorer daf ma jaam te gënoo ma ñooñu tamit gis naa ñu leen di dóor di lakk seen i kër di toj seen i kër loolu lépp am na te loolu la ñuy éviter balaa muy àgg suñu biir dëkk yi ñu waxtaan ñun ñëpp ñu nekk benn ndax aada bi toujours mooy remplacer njaam bi duñ la mun a wax exactement yow jaam nga duñ la ko wax mais aada bi la ñuy jël ñu jox la yow boo comprendre leen noonu ngay continuer léegi nit ñi loolu lañ comprendre ne ñoom mënuñoo lekk ay jéeri set wecc ñu ñëw di leen defal ay aada yoo xamante ne ak ay cosaan pour ignorer leen wan leen ni ñoo leen gën te gënuñu kenn mënoo juddu géer digg bëccëg ndar kàmm di nekk jaam c'est pas possible mënul nekk. franchement da nga ma laaj point boo xamante ne man sama maam il n'a il n'a jamais vécu ça musul def aada musul def cosaan. dañ koo jël dugal ko ci communauté saraxule mais man sama maam mu musul def aada musul defal kenn dara fu buur yi dëkk ñu naan ko ñu buur falaa dëkk donc mënuma ignorer non non comme wax la déedéet comme wax la damay damay kii euh, wax bi dañ koy bañ sax léegi mais comme koñ boobu ñu dëkk man falaa laa dëkk gënuñu ma te duma mës a nangu ñu may gën